li ma fa gis li gën a li ma gën a marqué keroog ca tukki booba moo di ne dëkk boobu nekk ci amerig handicapé day dem ba fàtte handicapam ndax bus bu ñëwee taxaw fi ñuy teg tànk war ko yéeg mooy wàcc fekk ci borom chariot yi ñu mën a chaise yi ñu mën a dugg trottoir booy dox boo buggee wàcc traversé trottoir bi dañ koy wàccee noonu doo soxla ku la dimbale nga mën a wàcc trottoir boobu boo duggee ci ascenseur naka sa naka noonu fi ñuy bës dafay wàcc nga mën a bës ak yeneen ak yeneen ak yeneen li tax may wax loolu mooy handicapé boo ko bëggee dimbale mu donne citoyen à part entière Tepani pas donne un citoyen entièrement à part C'est politique les Jogé, politique daf ko nangu de Mais c'est ma discrimination positive itam am solo dëgg la

li nga xamne nak man ak Hadiba and nañ ci ndax ci deug deug ni ma la ko ni ma len ko waxe sax du ne man man ak Hadiba ño and muy politique autrement bobu a am ñuko tudde sank mom la len bëgg leral tuuti man ak Hadiba musuñu politique musuma politique na ba jéxal nek premier ministre ba génné ci tok na ñaari at musuma woon politique waaye xam li tax jafe-jafe Sénégal duñ ci mës génn moo indi ma jàpp ne dama war a politique ma war leen wax nag ban façon yi politique ndax jafe-jafe yooyu ñuy jooy jeunes yi ñëw nañ ci sànq jaar nañ ci sànq duñ fi jógee fileeg ñu ngi doxalee suñu réew mi ni ñu koy doxalee du fi jógee fileeg ñu ngi taamu ay njiit ci biir politique ñoo xam ne bu ñuy dugg ci politique bu ñuy yëngatu ci politique seen njëriñu bopp la ñuy jiital te moom ngeen fi gis yaakaaruloo sa ñàq jëriñoo yaakaar nga politique mën a am ci moom loo dundal sa njaboot mën a am ci moom boo boo yemoon ca loola sax ñu mën ko nangu waaye yaa ngi ci yaakaar it loo am oto ci oto loo am kër yaa ngi ci yaakaar million bu dugg sa kër sa sa poos ba ca milliard boo feesalee sa poos yaa ngi xalaat sa rakk moo xew nga jëwaay xewit nga lu jëm ci sa ci sa ci sa ci sa doom lu jëm ci sa jabar ci say mbokk fileeg ñu ngi fal ñoo xam ne noonu lañu gisee politique mu jaral leen lu ne ba ca diggaate te duñ ko def xam ne duñ ko mës a def waaye li am solo ci ñoom rek mooy nañu àgg fi ñu war a bëgg a àgg toog fa toppatoo seen i bopp fàtte askan wi ah comme du fi am de te jafe-jafe yi ñu doon lim dina fi yàgg kon nag jot nañu génne beneen façon yi politique jot nañu taamu yeneen façon yi du ma wax sax politicien homme politique walla femme politique ay homme politique ak femme politique yoo xam ne dañu jàpp politique war ko dundal te duñu xaar politique di leen di dundal dañu jàpp ne politique ki cay yëngatu ku koy dox yaa ngi xalaat amal njëriñ sa réew amal njëriñ sa askan amal njëriñ sa dëkkandoo amal njëriñ sa sa ñi ñi ñi

ñu indi ay député yo xamné président bu indé loi bu baax ñu taccu warna bu ma loi bu baax nag muy loi bo xamné dafa jëm ci ñu askan wi wayé bu indé loi bu bon ñu nekkoon nous sommes pas d'accord non bu fekkee ne bu fekkee ne bu fekkee ne lu mu faté mu melni lu jëm ci handicapé yi ñu ne ko fàtte nga li daal di taxawal benn waaye mu jógee ci assemblée nationale waaye assemblée nationale.